tabaarakallaahu tabaarakallaahu bu ñu ko toppee. sëriñ bi ne bu ñu ko toppee. dafay gudd. waaye daal yonent waaye Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. ki toog koy tagg. ki toog di déglu ñu koy tagg. ak ki koy tagg. ak ki koy tagg. ak ay xéewalam def ko ci yonent bi. ak ki yëkkati ay xéewalam def ci yonent bi. ki nga xam ne ni dafa nekk ca waañ wa. dafa nekk sa waañ wa. nekk ci yonent bi. nekk si yonent bi. ak ki nga xam ne day toppatoo bool ya. ak ki nga xam ne day toppatoo bool ya. ak ñay lal napp ya. ak ñay lal napp ya. ak ñoom aldoom yi indi ginaar ya. ak ñoom aldoom yi indi ginaar yi. ak ñoom njànku ñi nga xam ne. ak ñoom njànku ñi nga xam ne dañ cee taxaw. yooyu yëpp ña ca nekk. ne ñëpp ya sa nekk. ci sa yiw. nga xam ne ñu ngi ko amee ci barke yonent bi. nga xam ne ñu ngi ko amee si barke yonent bi. dama ne kenn xamul nu mu toll. kenn xamul nu mu toll. waaye lenn rek. waaye lenn rek. doy na ca doy na ca. mooy bu ñu yemoon ci maam Cheikh Seydi Hadji Malick bu ñu yemoon si maam Cheikh Seydi Hadji Malick li mu wax ni. ñetti sururun. ñetti sururun. sururun yam waxoon daal. sururun waxoon daal. sururun. fii sururin. fii sururin. wa iidun. ayaadin. uyuuni. cey. Ah bi sururun yi lu muy firi. <laughs> wala ñoo bokk pirin rek sk ce mhm. am maam Cheikh Seydi Hadj Maay lu maam Cheikh Seydi Hadj dafa am lu mu njëkkee. mooy dafa tudd bés ba. ne dafa tudd bés ba. waamun summa shahrun summa yawmun. sururun bu nekk accompagné. Ah, est-ce nee na sururun bu nekk dafa accompagné bayit ba ko jiitu waamun summa shahrun summa yawmun. benn sururun bi benn sururun bi moom moom waamun benn sururun moom wa shahrun benn sururun moom wa yowmun namatuma sëriñ Mansour demal laa ilaha illallah kon tabaarakallaahu lépp mbégte la yonent bi lépp mbégte la waaye ku sakkanee ni moom amul cey kon aldoom kon aldoom li ñu ngi leen di sant di leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm. seen taxawaay gis seen taxawaay gis nañ ko de. sëriñ bi jamono bu nekk mu wax. sëriñ bi jamono bu nekk mu wax ko. aldoom mii. aldoom mii. cofeel gi mu am ci sëriñ bi. cofeel gi mu am si sëriñ bi. bu dogu woon ci yow tey. bu dogu woon si yow tey jii. wala ku mu dogu ci moom. wala ku mu dogu si moom. la dinaa la jox milliard. ne la dinaa la jox milliard. bu doon jaay ay biens yëpp. bu doon jaay ay biens yëpp. dina ko def. lum la la wax ci sëriñ bi dina ko def cey. waaye soppul kudul sëriñ bi. soppul kudul Alaaji xamul kudul moom. xamul kudul moom. doomam ji toog ci doomam wetam. sëriñ bi la ko tuddee. eskey c'est Alaaji Ousmane mu ndaw. ne mu nga xam ni. moom moo yor président fédération daayira yi. moo yor président fédération daayira yi. ba bu ñu jëmee gàmmu nget. jëmee gàmmu nget. amul foo dugg. boo amul foo dugg. demal taxaw kër bul kër kër aldoom xam naa si dara man mi wallaay aller retour moo leen di yor lépp amul benn tabaski amul benn tabaski buy ñëw lu dul day jël laadum buy jar ay millions. lu dul day jël laadum buy jar ay millions. ne tabaski sëriñ Bangoog. maanaam daal gétt maanaam daal gétt gi. xar mi ci gën a baax mi ci gën a baax. mooy bu bas sëriñ bi. <laughs> wallaay ndeysaan. moo nee moo tax moom. dafa am benn jamono. dafa am benn jamono. mu feebar mu tawatoon waaw. ba ñëpp amatul yaakaar kenn amatul yaakaar sax si moom wallaay. mën naa laa wax ni. nee mën naa laa wax ni. booba li ñu féete woon mooy. ku nekk yaa ngi doon xaar appelu aldoom wuy ji na borom. ndax yaakaar amatu si woon. keroog bi sëriñ bi seetee ko hôpital. keroog bi ko sëriñ bi seetee hôpital. visite wul doon am. visite waru woon am jour na ci. ndax tolloon na ci. accordé wuñu benn visite. benn visite. sëriñ bi ne médecin yi génn. sëriñ bi ne médecin yi génn leen. aide soignant yi génn. aide soignant yi mbooleem ñi fa nekkoon génn. mbooleem ña fa nekkoon génn. moom rek ak sëriñ moom rek aldoom ak sëriñ bi si lalu hôpital ba mu nekk si li ñu naan diggante dund ak dee waaye ba fa sëriñ bi bàyyi ko ba jox ko la mu ko jox mu naan boobaak léegi yaakaar naa mu ngi nii teew te sëriñ bi doguma la nga baal bi ñu àndeek daayira ba dem fa ñu bëri di jooy munu leen jarul jooy dina gudd fan <laughs> dina wér teg dina gudd fan te boobu kii juddoogul woon tey mu ngi nii ànd ak alaaji Ousmane Niang <laughs> lu amul seede baaxul noonu la ko sëriñ bi waxee. waaye sëriñ bi dafa am lu mu wax. waaye sëriñ dafa am lu mu wax. mu ne teguma ko ci sama wax ngir wane man maay mu ne teguma ko sama wax rek ngir wane ni maay maay kan. ndax man duma dara. ndax man duma dara. waaye dama kaa teg ci waxu suñu borom. waaye dama kaa teg ci waxu suñu borom. wa am ma yanfa'u naas. wa amma ma yanfa'u naas. fa yankusu fi fil ardi. kon njëriñ bi muy njëriñ aw xeetam. kon njëriñ bi muy njëriñ aw xeetam. di ko jëriñ ay mbokkam. di ko jëriñ ay mbokkam mbokkam yaa ngi nii toog. Baay Ablaay Bambaadu. Baay dafa wax ni. dafa wax ni. baayam daka daan wax ni. baayam daka moytu leen di dem seen kër seen kër di leen xas di mu ne ko baay naka la ñuy ay bambaaru. dem si suñuy kër géer di leen xas mu ne ko axa boo demee sa kër géer ay mbokkam toog yow mu defal la lu baax nga koy wax te mbaax googu njëkkewu ko woon si ay bokkam da nga yaakaar ne yaa ngi koy tagg waaye yaa ngi koy xas waaye doom mii li ñuy wax si moom xasuñu ko de wallaay wallaay wallaay wallaay ndeysaan keroog ba mu yóbbu pàppaam màkka papa bi ba billet bi génn mu ni ma dama naroon jaay sama oto yóbbu ko yóbbu yóbbu góor gi màkk far yàlla indi xéewal mu garde oto bi te teewul paa bi dem na màkk loolu moo ma ko wax man mii wallaay wallaay ndeysaan Seydina Mohamed sëriñ bi ne gis nga aldoom ku baax aldoom mii nit ku baax la ku yàlla baaxal la waaye ku sopp sëriñ bi la man de lenn gëm naa ko. man de lenn gëm naa ko. mooy cofeelam ci sëriñ bi. wallaahi luñ ci mën a dogu. wallaahi luñ mën a dogu. suñu dogom fekk suñu borom fekk ko si. ndax nag suñu borom moo wax ni. ana. inda zammi abdika. jaam bi fa njortam jëm. jaam bi fa njortoom jëm. man yàlla foofu laa jëm. ne sëriñ Abib nga baal ma doguma la. maa ngi wax ci cadre liggéeyal nitu yàlla salmaanu minna ahlul bayti salmaan du sax ab arab ñëw bokk si njabootu yonent bi ba ne salmaan day sama sama sama bopp la bokk ba kuy wax salmaan ne sax xaydara loolu sëñ ne xam nga lu ko may mooy liggéeyal yonent suñu maam alxaaji daawuda ja am na taawam bu ñu wax Cheikh Ahmed Tidiane Dia mu jëg dundam boo ko musaan jox loxo te xamoo ko nga ni ko góor gi noo sant dafa naan bu jëntit bu njëkk da jàlla woon waaye saara xaydara léegi xaydara la sant loolu dafa am si aqiqa da ngay liggéeyal yonent bi ba mu boole si njabootam noon ngay liggéey waliyu ba mu boole la si njabootam nee nañ yowmal xiyaam li gën a néew si lii wëli di xettali doomu aadama nit dana ko romb mu mar mu may ko ndox yowmal xiyaam nga poñe ko mu ne la yow la kan mu ne la mas naa laa may ndox si àdduna loola dëgg si tey jii nga ràmm ma sama kanam borom wàllu ba ràmm ko <laughs> kon nag <laughs> sëñ Habib a ngi noonu jërëjëf macha allah macha allah macha allah wallaay moo tax sëriñ bi ne dañuy daaneel kàddu gi waaye lii ma fi wax ne moom la doon defal sëriñ bi defalu ko sëriñ bi boppam la ko defal lii amu ci kenn ku ciy jariñu lu dul moom bu ëllëgee suñu borom buy fay amul kenn ku muy fay lu dul moom boppam la doon jëfal. kon boppam la doon jëfal. compte bancaire u ëllëgam. compte bancaire u ëllëgam. moom la doon rechargé. bu ko defee rek. dañu am benn mbokk. dañu am benn mbokk. bu fi teew bu fi teew. di sunu gan waaye di ganu yonent bi. sunu gan waaye di ganu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo indi ñëpp ndax sallallahu alayhi moo fi indi ñëpp. ñun ñëpp ganu yonent bi la. mu nekk xaariul Qur'an bok ci ñi nga xam li sunu sangi yi tedd yi jóge ci mam mustafa ñang bu tayba di tagg yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam tamit dañu opté ne ñun dañuy jangi alquran di def comme ñom niñ koy defé muy alhaji musa mi di wóllëre ci sunu rak soxna faat mu ñëw seet si xadara bi gàmm si te géej na fi kat te nag kër gi ak xadara bi dafa am loo xam ne bët bu ñu leen di xoole dafa am bët bu ñu leen di xoolee. saa yuñ ko wàccee saa yuñ ko wàccee rek. Euh, nu ñu koy waxatee nu nu ko war di waxee euh, takkaay bi ñu la daan xàmmee. takkaay jubb bi la ñëpp xàmmee. boo ko wootee kenn du la xàmmeeti. dëgg la te xadara bi loolu lañ leen xamee muy xam-xam sharia ak tarixa bi ndeysaan kon bu ñu amee alxaaji Moussa gan gii di jàng alquran te taggkatu yonent ñoo Ibrahima te taggkatu yonent bu ñu woyee ñu kontaan lool ah kon kàddu borom bi bu jibee bu jigee ñu war nañ leen a dalal jox leen ci seen wàll jox leen ci seen wàll ñoom it ndax alquran nag ah ma ne huwa dustuur huwa dustuur moom moom mooy constitution mooy constitution bi si la ñuy sukkandiku sukkandiku de ñu jox ko rek ñu jox ko rek mu barkeelu si alquran bi alhaaji Moussa bismillah bu paree nag ñu daal di ñaan ñu ñu daal di ñaan waaw <laughs> ñu dem yëfi yëfi faale ni macha allah.